ñu ñoo ñëw tribunal fii waaw marché bi yëpp ñu génn marché bi yëpp génn ñu tej marché bi pour ñoo toog euh, jàppale Lamine Ndao Lamine Ndao nag mooy marché marché mooy Lamine Ndao marché kaw Kaolack Lamine Ndao la tudd. Lamine Ndao Lamine Ndao mooy marché Kaolack marché Kaolack mooy Lamine Ndao bu fekkee ne Serigne Mboup dafa bëgg a sànq euh, Lamine Ndao dina sànq marché bi yëpp comme mu ko ci boppam. bu ñëwee di waxtaan ak moom lu ñu ko wax mooy loolu ne ko ñaar désencombrement bi la ñu bëgg nga dindi ñu ko ba mu set wicc ñett ñu ne ko suñu délégué principal bii nag mooy Lamine Ndaw moom lañ bëgg nga reconnaître ko ndax marché moom la reconnaître daf ñoo tontu ne tant que Lamine Ndaw mu ngi fi nekk sa du ma ko reconnaître lan def mooy tey dafa jël dafa porter plainte Lamine Ndaw euh, ci euh, procureur procureur def soit transmis ñu woo Lamine Ndaw 10 heures commissariat de police pour entendre ko bañ ci paree ñu ngi fii nii indi ko tribunal indi ko ci procureur fas yéene ko nag sànq te loolu duñ ko nangu Lamine Ndaw dara waral ko li mu fi ñëwee marché koo tax a jóg dañoo liggéeyul te duñu duñu dañoo tëj marché duñu fay abonnement te fu mu yem fu mu bëgg ñi dem fa fu mu yem neex tant que libéré Lamine Ndao ñun Lamine Ndao duñu bàyyi duñu ubbi marché te duñu fay abonnement te dinañ fexe nag ba marché Kaolack yëpp kenn du ci fay abonnement te bu ñu ko waxee loolu mu gëm ndax union des marchés de Kaolack mu ngi ci ginnaawam te taxaw nañ pour def loolu